kon kon kon ci affaire bi du falsafa maanaam bil fil irtiqaa'i bil fardi wal mujtama maanaam maanaam importance bi falsafa am ci yéege waa ji ak ak société bi waaye nag la ma waaj waxoon li ma waaj a waxoon benn benn inspecteur papa ba sant ñoo tudde papa ca Ndakaaw ba ñuy dugal njàng alim diine mi ci ci ci école publique yi te ma duggoon ci man na ci kenn woowu mu ci woon waaye ma ma ci duggoon rek ñu toog nii di nag xaw ma di añ nii taabal ji nii benn waaye laaj ma ne ma yow loo di jàng ma ma ne ko xanaa fi ci filo mu ne ma man mi moo ma def adama problème bi nga jëkk am mooy diggante nit ñi irtiqaa bi yéege yéege la par par par ci lam bi mooy mooy mooy da nga yëg de waaye da da nga sut nit ñi ba kon sax diggante diggante ñoom dara jafe waaw mu ne am na ñu wax naan soo da waxal moom dana dana am ñoo xam ne ku ñu wax kay yasbër Karl Yasbër daa wax ne moom moom alfalsafa ci tawaasul mooy alfalsafa mooy mooy communication waaye communication ak ak ñan xalaañ xalaañ ñoom ci ñoom ci seen biir waaw kenn da bokk waaw kenn bokk ci moom kenn da xam li ñu wax dëgg yàlla moom inna falsafata kon yaxata de jëmal ci inna falsafata wasilatun li taxqiqi xaayatin insaniya maanaam moom léegi dañoo bëgg nit ki yéeg booy jumaa yi su su indi bi gën a kawe tënk ci bële bële wala ci mu jara du nazariyaatin xaqliya maanaam du du ay théorie ci kap ci ba nag dañoo wax ne fee koy teg fii naaw maanaam maanaam du ne ay théorie rek waa ji di wax loo xam ne nit ñi xamuñu ko mu jeex waaye dañoo bëggoon di nekk xat xati waxi moom sus xasuti i man i xel moom waay dali moom waaw maanaa maanaa du du kon ay théorie ay théorie kon rek waaye kon mu ne kon philosophe bi membre la boo xam ne ci ëpp société ci la bokk dafa dafa am ñaan philosophe yaa ngi si fii buur yi jël alxaaj yi ah mooy mooy iwaar iwaar waaw naaj ne daal diwaan daal daal dafa daal sori nit ñi maanaam waaye patron boo xam ne daal moom jox tur ni xamul lu ñuy wax maanaam yaa ngi suuf yi fii burji yi alxaaj yi alxaaj yi nga xam ne daa dem ba waaw waaw xam naa sori maanaam ab soto bu kawe mu ne fa di di di wane ne moom daal moom xamuñu xamuñu moo tax moo tax nu ci xamuñu ko fekk ne déedéet waaw kii moom oddu la ci biir gaa yi yata assaru bi ahdaati yi lii xew day jeexital ci moom wayu assur fii moom it moom moom it day jeexital maanaam nag Sarkozy bi yàggul rek Sarkozy am na benn problème problème xaw ma libyen libi benn benn philosophe moo moo ko doon ko ci conseil philosophe am solo loolu loolu at yee xaw ma daw xaw ma daw jëg France ak prof philosophie duggaan na defaat bac defaat bac
ndax lan
xam naa daa bëgg xam xam waaw léegi léegi ba bac bi nii ak ba bëgg bu jëkk balal la loolu ñoom jàmbar lañ jàmbar lañ mu ne kon coono mun a irtabata juxu juxu juxuduwoo bu doon jëxëdewoo nag muy maali faro waaw bu dee ja bu dee juxud nag mooy coono bu am njëriñ bil bax si fi muskilaatil insaan nga xamante ne ci ci problème yi nit lay xool wala wala ci wàllu mu mu tama léegi muskila nag ak muskilun wa muskila wa iskaliya muskilun muy am lënt mu yomb rek muskilatun mooy lënt mu jafe wala lu ab lëj lu lëj iskaliya mooy problématique mooy ab lëj lëj loo ñu ñu ne sax mooy li mooy loo xam ne mu ne su ko tonto mu ne su ko tontoo ci benn bunt ay bunt yu bari lañ koy jaar ngir mën ko utal ab solution loolu mooy iskaliya wala nuñ turi ko ci beneen wax moo di la moo di la tum axel bi ci falsafa falsafa ban importance la am ban yitt la am bi bisbati li fard nit ki rek moom jàng ko du nga ko jëriñ awalan isaaratu wa taamiqil waxyi alfardi isaara day jeqal bi jeqal bi xóotal yëg yëgu nit ki conscience yëg du yëg yëgum nag xol yow yow xel mu gën ko xóotal ku ku ku mel ne waa ji waxkat boobu waaye Cheikh Basir mu tudd waay jaay ji taal waaw jaay ji taal dama ko déglu jaay ji taal fi ñu toll jànk tubaab la bu bu jàng Auxerre la pour seetlu.
waaw fël fëltëfatu Auxerre la Auxerre la ab allemand la Mhm.
moom la jàng di ko wax wolof di ci jàngat Sëñ Tuubaa li muy wax li muy wax fi ñu toll lo- lo- loolu it mën naa leeral waaye nag nag kay déglu xam ni kii waaye waaye bàyyi lu baax lay wax rek.
ah day nax la xëy na xëy ku garaw la ku garaw ndax ki xafal xafal sama ku ko ko jàng te sellaloo Mhm.
moom nag ne woon na ma maam dane soo bëggee xëj ci ngóor doo saxal doo dindi doo soxla loo dindi.
doo doo saxal doo dàq nee na ma am loo xanaa ko kon jàmbar la dama jàmbar la waaw loolu loolu loolu mooy philosophie maam loolu mooy bërsëb moom.
ma ma maam maam.
nee na nee na nee na ma maam moo waxoon loolu ah waaw bërsëb de gannaaw wu caatu nasar li.
waaw de de xam nga de ne kenn ku ne xam nga tey am na boo xam ne.
de de foofu foofu bëggul Mhm.
philosophie su su su ma nee philosophie maam la mooy point de vue maamam ah point de vue waaw kay.
falsafa day am ñaari maanaam xam nga semence bi buñ ne buñ ne buñ ne falsafa diw sàngam ñi abraham bi benn waaye rek li ñu jublu mooy.
mooy rek xalaatam rek mooy uti sax rek waaye du waaye jublu ci boo ne Kant wala Descartes nag falsafa tam ah ñu xam ne kon xam-xam la teg na teg na teg na ci mën a.
waaw waaw loolu la loolu la bu ñaari bokk ci kon Mhm.
lé- lé- mu ne am na sax bi bi bi ko jàngan keer suñ suñ suñ soxla bi docteur Mouhamed Hamdi Sakk Suux mu ne ñu fi tollu ay yu bari da- da- dañ koy ti- tiitaroo maanaam di di wane ne man kat eh, ma- man jàng la jàng naa naan naan philosophie kat waaw ah philosophie jàngam jublu ci ne man daal jàngkat la fekk ne waxul dara lu bokk bokk nag philosophie Mhm.
waaw mu ne kon dañu xam farda yata yata yataaqalu yataaqalu xeeta wala yu àqalu xeeta mu ci wax baax na léegi da day rationaliser ak dundam xereñ ne woon naa ci wolof xereñ mooy mooy xereñ ci ay wax ci ay jëf waaw xam ah xëy na ak jikko ak jikko si saa xereñ mooy koo xam ne dafa xereñ ci wax ci jëf ak ak ci ak ci jikko jikko nga xam ne wax ji day tegu ci ci ci ci ci ay norme jëf ji tegu te- te- tegu ci ci ci norme jikkoom noonu waaw moo tax kon léegi am ak dundam day tegu ci xel wa turxisul insaan min subati amiq day yee nit mu ah ah ah mu génn ci ci nelawam ya wa tusaa'iduhu ala idraki ma mahiyati nafsi da koy dimbale ngir mu mu mu xam dëgg-dëgg kuy moom mahiyam maanaam léegi nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy kan xaqiqam waxu du du xariyati yi am xelam maanaam liberté am fan la yam wa makan nati yi fi fi fan la ab dayoom moom nit ki bu xamut ab dayoom maanaam du maanaam mën na ma ma mën naa bis bis bis mën nañ koo wax loo xam ne dala ko tax a bëgg a dugg ci suuf si te du ko mën Mhm.
xam-xam xam ab dayoom ci lu jël am ma Mhm.
adduna bi fii rek ñu soxla mooy adduna bi gëfee di yow en tant que insaan doomu xaar doo ginaar doo nangam kon loo war def wa wa wa wa mu tama société bi nga bokk sëb cër lan la wa nga xam ko léegi maanaa maanaam danañu ko xam ne ne defal jaan sañeen al itifaa bi bi mu soxla ak lii xel niveau intellectuel bi da koy yéegal maanaam fi ñu toll man bu ñu dee wax wolof sax daal di ni ma koy déggee su ma ko waxoon defe naa di déggewu ko na waaw fi ñu toll eh, def naa benn gëstu boo xam ne maa ngi ko gëstu ci maanaam léegi al wujud ci la la ko wolof Mhm.
ay na Mhm.
naa nii nan nun Mhm.
nawoon yu- ay yu bari la yooyu yëpp baat bu ne dafa am luy firi Mhm.
ci wolof xam am am xa- bëgg bëgg bëgg naa nga wax am xaw mi muy jaar xaw mi muy jaar.
waaw am xaw am xaw maa ngi koy door dégg moom aw yoon lay firi.
aw yoon waaw xaw am xaw dégg naa ko ñaari yoon ma ne waa baax xaw xaw maanaam maanaam maanaam lu lu lu lu xaw mu daal la mu ne kon
baa leen koy bind rek.
waaw waaw loolu bi bi bind naa ko bind naa koy waaye waaye koo ko soxlaa néew loolu loolu naa ko bind teg rek xanaa ëllëg ëllëg ndax ndax da dafa sori te nit ñi nit ñi nit ñi tëruñu la ñu am tëruñu bi wax la xam ne mënees ko ko lam rek loolu tax moom.
xanaa génne ko rek ma lay doon.
waaw incha allah ci kanam kanam gi aw kon waxalal muskilaat muskila fi toll ci Amérique am na lu ñu tuddee maanaam ko waxee ilmul azamaat azuma bu amee américain dañu ne léegi ñoom du du duñ jàngale nu ñuy xalluwa crise du la ko jàngal dañ lay jàngal su amee noo koy nooy créer xal waaw mooy kër yi.
ndax jamono dafa gaaw woo tax waaw loolu bu dee bu dee la ko wax nga te nga nga mokk la tey ko est ce que dina ñëw boo xamante ne leen leen leen leen jàngaloon dëppoo ut ak moom kon nañ la jàngal yow léegi est ce que ci boom mooy daal balaak moom waaw am solo la am solo la ta- taxamul falsafa à tax si taf tafkiiril fard
tax si tax fiya feedback tax fiya dum na feeding waaw feeding waaw tax tax feeding dund waaw.
dundal dundal lé- lé- léegi day dundal xalaat tu waa ji kenn ki yéege ko ci maanaam niveau intellectuel am buy wax wax wax ji xóot lu ko waral problème bi nag mooy buy wax ñu ñu ñu koy xam duñ bari leena ta- taatamidu ala tafkiiril aqli mujarrad moom moom xalaat boo xam ne mënu si ko làmb daj ci lay wax maanaam ay concept lay wax waaw nga xam ne moom du du du wax loo xamante ne su toll su su waxtaan ak ku mel ne si Mourou dana waxtaan ak ma ne diw ma ne suñu daara yi nangam ñu ne ni ah mel na yaakaar ne dama koy nettali fekk ne nettali ma ko de ma ne ko de jubluwuma ko de ma ne ko jubluwuma jëmm ji waaw maanaam maanaam falsafa du du falsafa du du waxe noonu suñ mu mbay bay bay bay bay bay bay bay bay ma ne ko ma ne ko ma ne ko falsafa du waxee du waxee lu ñu ràmb daj su su ma loolu loolu am mis am mis job la potamonte rek la bu bu bu bu ma wi ko waji incha allah waaw waaye si Sénégal moom loo wax ñu ne ah yaakaar ne da ngay wax jëmu ji man man man te man waxuma jëmu ji loolu loolu da da yaari xorom lool mu ne kon wal istihaana bi adlil mantiqiya logique doon tey jànkati tubaab yi buñ dee wax seen morom yi ni ñuy diggantee diggante bu yomb dañoo dañoo am méthodologie ñu jànkat am na dañoo jëggul méthode mais ay problème noonu ah waaw yé waaw dañoo problème noonu kalimaati boobu.
di di di di di di ma nag ke ke maa ngi doon xam nga bu dee jànkat tubaab bi dañ leen jàngal ne nit ñëpp ñoo bokk nu ñu war a waxee loolu nag jànguñ loolu waaw ñun daal maanaam bu la neexee nga ne danaa ñëw su suba bu subaa nga- bu subaa doo ñëw te dara ñëw ci maanaam loolu dara ñëw ci wax bu dee moom danaa ñëw sa.
te te te te niroo ko niroo ñëw moom waaw waaw waaw xam naa ne bu dee nag logique moom danaa ñëw daa am luy firi waaw. force da ngaa war a ñëw.
waaw maanaam baat bi luy firi moom mooy nangam boo nee da- danaa ñëw cinq heures cinq heures am waaye du ci ci waaye cinq heures trente amut cinq heures quarante amut déet cinq heures képp zéro moo am ndax ndax ndax boo ci topp une minute rek kenn du wax cinq heures daan cinq heures une minute wax léegi nag baat boobu loolu li ci toll li li ci toll man ci réunion bu buñ buñ ma woo ma jëkk fa toog di xaar ba sonn su ko waral xam naa ne nit ñi duñ ñëw waaye automatiquement la la koy doxee xel mi xel mi xel mi noonu la noonu la la la ma doxee loolu loolu nag a baax nit ki xel mi conduire ko philosophe xel mi xel mi conduire noonu nag suñu xoolee ñu ko conduire waaw ko foofu fekk kooku doxul doxul kon wa- wa- wal istifa bi- ah, waaw mu ne kon waaw al le fadd faddi bi wutit na sëriñ maanaam daa léegi nga xam ne léegi lu si gub nee nee naa leen un plus un égale deux do doone deux égale un plus plus un loolu xel xel nangu ko noonu noonu nag la la it war a doxee soo dee bind bind bind bind leetar salaamaaleykum suñu neen def waaw daal di teg daal di ne man Moussa Diop maa lay nuyu lu bare bari di laaj jabar bi déetu naa ji loolu mu jëkk ci digg bi nga ne kat man man man man nag dama laa soxla woon nga àll ma téye sangam ba kañ ma ne ba ba ba nangam bind ko taa ne si sëñ bi kon nangu nii ñëpp bokk yi ah, ah, xale yeeg ñëpp nuyu ma leen ak xale bi su ma dee liir lettre bi su ma su su ma amee su su sama tànqatee lii képp lay liir soxla soxla si fii ne lettre lii ab nuyoo la lii pagoo la
waaw ah waaw soo dee waxtaan yow ak nit maanaam léegi li ngay jëkkee du ko diglu li ko diglu moom pour pour pour ubbil ko la mu xam foo jëm si sa waat su su su su ma daal di wax li may jëkkee da dalay wax fan la jëm moom kan waaw sa sa seeblaat dama damay yéem xam ma boobu xam-xam loolu moom moom wilaayal sax dé- dégg nga dégguma foofu foofu mu jàngee digg bi nag mu wax ci wax jëpp bu noppee risque bi ko mu jeex
te noonu la noonu la noonu noonu mooy wax yéen dëgg lu lu xam-xam la da da dama ne man fan xamu fan la ko ko ko jàngi xamu waaw loolu loolu loolu loolu moom moom moom bàjjil la léegi nag kon ñun ñun da- da- da- dañuy jël la nga war a mujjee jëkkee ko sooy wax du- du- kenn du xam lay wax waaw loolu loolu rek logique day am ay lu war a jëkk lu lu sa topp lu lu lu war a mujj sa saa bu loolu la waaj a dabee ca wax ja xam ne yaa ngi toll ba sangam mu mën a naa naan ak yow waaw man nag moom loolu xam na ko waaw waaw lu am am solo la kon kon kon dafa dem wujjal na sëriñ yi ngir renforcer maanaam léegi point de vue am Augustin am ah ah si xaalis nga xam ne moom li mu jàppee ne noonu la waaye nag ne woon nañ tees la tees li ngay wax yow buñ ca waxtaan ngay di tees war war a ne waxtaan na du waxtaan waxtaan la kon nga waxal ma wax ma wax ñëpp wax ñu tànn na ci benn teg kon léegi tees ante seen tees seen tees mo- mooy résultat bu waxtaan andi tees tees seen tees tees andi tees seen tees léegi li nga wax mën naa ko gis gis ah li bi wax waaye nag daa mel ne nangam de mais nag waaw loolu bu amoon na baax ko ko ko léegi kon li nga kon andi tees sa wala kenn ah waaw ci waaye de la kay wax mooy de bi bi ko jëkkoon ndax ndax nangam nangam ah waaw lu koy def kii mu seen tees kon kon kon waxtaan la noonu nag da- da- dañuy wax yaakaar ne soo waxee mu jeex mel ne alxuraan te te rek do doxal waaw lu am am solo la mu ne kon comment tutaayi do fi ala muhaajati muskilati hayat bi zakarin sayha daa tax it problème bu am mu mën koo maanaa léegi ci ci ci résidure noo xamante ne da dana wér waaw waaye du teg ay bëgg-bëgg yooyu am na foofu mooy wax ne ma ne ne falsafa bokk bokk na ci njëriñam moom mooy wan la dëgg dëgg dund gi lan la waaye nag neex na naqari la yaa xam falsafa boo ñu xool ci ay bëtam da ngay gis dëgg ci lu dul mu neex ak mu mu naqari la moo tax ma ne appliqué kon war nañ war nañ koo jàng ba mu xamal leen seen tardement bi lu ko waral du nekk di jëfandikoo xel dong dong la waaw ok la te ci imaan bi tal wootekat yi bari di nëxal xel yi dafa am benn sëriñ bu ñëw fii yoo wax na ma kat ab s- am na am na koo xam ne nee na dem naa jëna jub def sëriñ xam naa ko xam naa ko sëriñ may wax dem naa jëna se- seet na ko ma ne ko loolu sëriñ bi du dara gis naa koo xam ne dem naa jëna am na fa ñetti fan ba muy wax lu mu wax ma ma- ma- may giñ bu waxee may waat dëggal ko ma ne ko loolu dara di bàjjee na ñëwoon du dara li mu jël mooy waaye li mu wax lu ma lu ma jëriñ ñoo def ba cinéma sa sëriñam day ne ne ne maanaam léegi nee na yàlla xamal na ko maanaam xam-xamu yu yéen yéen yëpp xamal na ko ma ne ko suñ bi ma ne ko suñ bi li nga wax nii lu ma jëriñ ak lu métti bii sa sëriñ kay dana andi ay ay ay pexe kon ah ma ko ba xam man lu ma gëm a kurus gi yàlla gëm ak sama téere yi waaw lu lu loolu am naa milliard jox ma ko man jox jox ma million ko ma dem jox ma million ko man ah waaye gën am milliard lu ma lu ma jëriñ ma ma maanaam nit ñi nit ñi suñu tubaab moom dañoo yee wala tu- tusaahib gayra man bii tusaat yow aqal abadan tàngoraat waaye nag kenn lu may lay yokk diine ah am xel waaye ànd koo xam ne day théorie di wax maanaam la day malaaka yi feeg malaaka yi sama yëngu ci man ah dama xaw gars yi naan da da da da bëgg àgg ci yàlla mais waaw yàlla indi la ci tool bi nga bokk fi di di di ca ca palem ba soo soo demee mooy loolu lay wut si
voilà def réeré.
ah lay wut si lay wut si lay wut si waaw loolu la xam nga loolu.
sëñ bi Fall ay waay xalifa bi jiitu sëñ bi xalifa bi mu tudd xalifa ba Baye Fall yi si wut aminta soo xew ko ba taa ñëw day daal di jël ñaage kër ga buntu kër ga maam jeex na kër gépp lay wax ñu génn mu mu ñàkk ko mu jeex ñàkk ko kenn ñu wute dem di ko seeni moom néew ba yàlla ni la jël ci tool bi nga nga ne si ko ci problème ba looy wuti mooy la si looy wuti waaw looy wuti waaw ko- kon léegi mu ne taakidul iman bi siqati bi xam- waaw siqa bi xodratillah maanaam léegi gi falsafa day tax nag li nga gëm yow ci nga sa xel nanga ko yàlla am na Hmm.
am na am na benn scientifique boo xam ne xam nga nu mu defar dafa jël ay appareil daal di koy posé ci biirub jigéen maanaam léegi bi ëmb bi tàmbalee ba ba keroog muy am doom di ko xool ma ma- maanaam si si si si xalaat yi cellule yi buy buy juddu cellule bi cellule sàngam di di inxisaam di di xajalikoo ngir jur ab loxo cellule bu nekk ba- bay jur baaraam sàngam sàng lañ bàgg ci ba mu mu ñu ñu gis ko cellule sàngam mooy jur baaraam sàng lañ baaraam na digg baaraam nangam moom mu ne man bu mu noppee mu ne moom xamul yàlla waaye xam na ne am na xel mu sell mu nekk ci ginnaaw lii di ko ori- orienté ndax ab cellule moom ab ab cellule mu de- mu de xëy xëy naan cellule bi bi jur nopp ma nga ne bi jur gim nga ne bi jur bëñ ma nga ne bi jur rek ne loolu mu rek Hmm.
mu ne lii moom dara la Hmm, dara la.
moo tax moom kon da da day dëgëral sëgëm yàlla waaw.
loolu moom ab falsafa la woon, ab fal- ab ma falsafa.
ma ma scientifique la xam nga ne woon naa épistémologie ah kon da- da- dafa jàng science ba ba ba tiim ko nag doon doon philosophul elmo nga nga nga nga xam ne moom léegi léegi day day jéem a balalu ci ci résultat yi yi science am di di ko dund ci ci ci falsafa lu am solo la parce que bi rek lay tax la da- dana la mel ne xam yàlla kattanam bi comme comme tey scientifique boobu te sal falsafa ila basi siqati fi nafsi insaan nit ki nit ki day day dëgëral boom xam ne am na fi ñu toll man da- dama naan baaxul kenn ëmbalu ma njëriñ bonul kenn ë- ë- ëmbalu ma ma njëriñ fi ñu toll wër di siyaare maanaam li am an li ma ci nangu mooy ma kooke jëriñ ma mbaa ma jëriñ ko bu xasee jeex soxla si soxla moom mu ne kon waaw te kii imaan yi nit nit ki nit ki nit ki nit ki yëg boobam yëgu xam li nga man li nga man nga xam ko waaw yëg waaw yëg loolu li nga mën mënu ko Sénégal moom moom moom day moom moom moom dañoo jàgg kër yi yooyu waaye moom da ngaa loolu du yëg tolloon ci waaw waaw waaw, maanaam nit ki dem bu ngeen àndee, lu nappee jëriñ.
waaw waaw waaw maanaam man sa sa sama ànd dama ne ànd ak ànd ànd ak kenn mooy nangu naa mu mu bàyyi ma ma jëriñ ko mbaa mu mbaa mbaa mu jëriñ ma waaye su xasee jeex ci loolu man ah, man sa ànd ba du du- du ma nekk man tey naa ko yàq tax la tax la ci ci man waaw man daal nangu naa ñi ànd su su su daa daa waxoon ne ñaar bu ñu àndee bu ñu nuyoo nee na asalaamaaleykum waaleykum salaam ka gën a xam boromam lay jëm waaw li nga xamoon lii waaw mu jeex waaye nekk fa jox leen aw njëriñ waaw am njëriñ waaw wata kiiru imaani yi billahi wa diin dana ko xa- gën a bu am kulli ci diine gëm yàlla xam diine ala asasi xanaa alaqal yi waaye nag mu gëmee ko ci am xel du du- du comme nu ni ñuy ci gëmee Cosaanoo, waaw.
waaw nga xam ne xel éqatina mooy convaincre ci ci ne lii dëgg la xam nga nañ seen bi suñu wootekat yi bu ñu doon jëfandikoo xel nee naa fi nag jànkatuwaa bi li tax wootekat yu bëri yi jànkatuwaa bi ëpp ji xam nga moom mooy la na jànkatuwaa bi wax ko lu mu xamut da da da da da koy neex da da koy yéem mystique tasawuf mooy yor naa milliard waaye du ma la ko wan toogal toogal man am naa ko waaw jànkatuwaa tuwaa bi nag moom gën gën a xamut diine wax wax lu lu mu xamut day neex ci moom. waaw ndax moom lépp tooy moom moo gone gi gi ni ñu koy ni ñu koy naxee ci de- de- demal soo dikkee moom mel na mbaxus noonu la ñuy naxee da- dàngatoo ndax mbaxus xamul xam yow doo doo xam lu luy firi kon mu ne Badara waaw ba ba léegi mi mi mbirum sal mbirum sal salamat al mursal mu salamat yi mooy comme ni ñuy dund maanaam lépp looy gëm dañ la ko gëmloo waaye yow gë- ci gëmoo ko
waaw ñu fekk ko fi rek daal
afadri jërëjëf bu waral ba mu doy la nga jàpp fi toll sunu murid gi fi mu toll te te- ma- da- da- da- dama day wax naan su ma wéroon ne suñu tuwaay mi wérul maanaam léegi ñu mën a ci génn man dem ma lii am na ci yitte ma- man man man ana xorro su ma wéroon ne ma wérul ma génn ci man maanaam mbooloo bi képp am na ñoom déet ma man ñi mel na ci laa béréw ma ne asgoor nag mooy koo xam ne day ñemee rafle ñemee di ñemee wér ku ku ku ko xam ne ñi ñi ma war di def yëpp yi dos ko man nag yooyu yëpp ñu ne ko ba ba nit ñi dem waaw ba nit ñi dem waaw waaw léegi as gor dur yomb de loolu ah yóbbul kay yóbbul yóbbul kay wala yóbbul waaw te kon kon bu dee nag yenn philosophe yi nga xam ne da- dañoo dem ba for ilhaat weddi yàlla fii noonu xel su xel la bëriwuñ mu xam ne bi bi fa bi falsafati mu um ñoon maanaam boo xoolee ci falsafa yi gëm gëm moom maanaam na- na- naa léegi ñoom ñee tuuti lañ ay nit ci yooyu bëri bëri bëri sart bëri wuñ maanaam ñi nga xam ne ñoom sax saxaroo falsafatoom xam ne ñoom dañoo tàggat seen falsafa li brahimati àqal yeen alaw ji daa ngir layal na yàlla am na ñu ñoo ñu ñoo ñëpp ay Kant Descartes Husserl bëri nañ falsafa yëpp moom ñu gëm yàlla lañ monsieur Mame Fall imam Xasali Xasali ak Descartes noonu nga xam ne ñoom si si lépp mu mu mu mu doon layal na yàlla am na waaw Xasali yi dund yëpp loolu la parce que il ne fallait fallait xudama ñi nga xam ne ñu ñu ñu ñu ñu ñu jur si na Isa yi sax Isa Isa Afasan Aristo maanaam léegi xaawaloo xaawaloo de fii xam ne waaw xaawaloo isbaata xaawaloo isbaata wujudil ilah maanaam maanaam góorgóor góorgóorlu loolu nañ ngir bëgg a layal ne yàlla am na waaw ci seen ci seen pexe waaye nag seenu ci ci seenu diggin yow boo ko boo boo boo ko seetluwut da nga yaakaar ne lii maanaam léegi ak wet yàlla fekk na yow comme tey tey faara bi ca Nasir Fayd dafa ñëw Nasir Fayd fekk na léegi moom léegi booba ñoom pexe moomu la am waaw Nasir Fayd dinañ heure bu ci accès dana dana leer xool isbaatu tuuti wu ila bi addilatil aqliya donc góorgóorlu jéem a leer yàlla afaatoon wala aristo afaatoon moo doon wax naan al al al muharrik allati la ci laay tax rek almuharrik alladi laay allati laay tax rek da da daanaka léegi mu kuunu bépp ah ah kii la as sukkuun al al xarakatu ci wa sukkuun la loolu composé léegi nag ki ki ki nga xam ne moo ko composé moom yajibu an laa yakuuna mutaharrikan
moom dana dégg daal te yëngal bi yëpp di di di waaw waaw mu déglu mu rek def waaye ci waaye waxul la mu nekk sa su ko sakin de sakin xiyal wal fasad leneen lay doon leneen waaw leneen lay doon waaw mu ne kon bi adil aqliya wa samayatin mutalifa tarawafuhum masrubin waaye ñu ma kenn ku nekk sa jamono la la maanaam sa mustawa ci xam-xam ak wala science la la fa amoon ci ci ci lañ daa waxee mu samayaat mooy leen yéen tu- yéen tuddoon waaw waaw ay ay nañ ko tuddee comme concept yi dit con con concept yi yi ñu yi ñu jëfandikoo ahmadu falsafa li li li li mu tama awal al al itixaaw bi bi bi mu tama kakkul day yëm fexe ba société bépp yéeg nga xam ne il faut que tam tam alal itixaaw bi bi waxee ifaan da fexe ba ne ba ni seen conscience bi gën a ñaw wutul nam mi fii mu saf kii fa dàq yi muy dundal ci ci ñoom maanaa léegi ñu critiqué dara doo gëm dara te critiqué woo ko moo tax man te xam ne la al kalaamu yaxtamilu sidqa wal kaziba li zaatihi ëpp topp
al kalaamu yaxtamilu as sidqa wal kaziba li zaatihi ay ay li zaatil xawlu wax ji rek man bu bu may critiqué wax jaa critiqué critiqué ma ka ka ko wax man sama sama sama niw ci wax ji moom ndax dëgg la am du dëgg ay wax wa- wa- ci waaye waaye loolu nag xam nga da- dafa xaw a sew waaw ndax waaw waaw loolu dafa xaw a sew moom waaw ci waaye yow mën nga lépp lu wax rek nga ne ah ba xam ah ah rek ah ah mooy ja- ja- ja- dégg dégg da- da- da- dañoo wax ne ñooñu ñoom azaatu wal mawduu yajibu an si bi xel naan naan naa yow rased mu noppee ñu takaat ko an takuna baynahuma masafa espace sa saa boo seeyee ci dara duudu ko man naate
waaw mu ne azad waaw wal mawduu yajibu an takuna baynahuma masafa ngir mën a gis jëmm ji ak noo ko firee zaat boobu waaw jéjëbi ji ak siise bi siise bi nga saa bu ñu taxaloo rek duutoo mën a gis dëgg moom kay leer na waaw loolu loolu daa am solo fu ñu toll noonu nun nun nun nun fi toll tey mu murid yi li li tax mënaguñoo avancé ci ci Sëñ Tuubaa du dugal ko ci la laboratoire xam-xam mooy Sëñ Tuubaa dañ ko taqdis taqdis taqdis Sëñ Tuubaa daal maanaam su ma ko dugalee ci ci la laboratoire xam-xam mën na maa wan négatif te te bëgg moo gis xam-xam la loolu loolu loolu loolu moom ni ko loolu moom si kanam génération yi kanam ñoom bu dikkee ñoom dana dana dañu mën a waxtaan yooyu waaw nit ci seeree ci kanam waaw si si si génération génération waaw bu dee bu dee si génération bi ñun mënuñu ko waaw ku mel ne man su bindee it da da da koy denc rek ba ba ëllëg waaye moom mën na si ko xam léegi waaw ma tax yoo xam ne gars yi bu bëgg naa bind sëñ Touba ak ak tërbiya jinsiya nu ngeen koy tuddee nan nan kii cu- cu- culture sexuelle ngi tudd yaakaar am nañu ko ci é- école yi de ñu bac danañ ko jàng ñu ngi tudd nan nan sexuelle sexuelle maanaam góor jigéen xam nga da- da- dañ koy dañ koy jàngale sa xawal jinsiya lañ koy tudd ci arab
culture culture sexuelle dafa waaw am- am na nag baat bu ñu koy am na benn baat bu bu bu bu ko tuddee yéen léegi loola ma may leen loola man bëgg naa ci bind suñu tubaab nu mu ko gisee waaye dama xam ne ja- jamono ji laajigu ko ndax dafa dafa di di ñu naan ko ci ay ay waxtaan gannaaw waaye loolu loolu foo ko ko jëlee may leen mi mi mi ngi ci téere mi waaye lo- loolu moom jërëjëf mën ñu koo xam ndax ne gën ginnaaw gën ginnaaw jànkari ci moom ñu yéemu jaxal leen foo may di jël loolu kay moo tax kon mënu si ko wax léegi mu ngi fa waaw waaw waaw mu ne kon fatanaa kisu daalika alamu tam kakull bu dee kenn kenn yi jàngal lañ fi da tax ñu def bag bi ñu ngi lay jàngal ko ci fa bag bag bi yéen gone yi xam ne yéen a war a génn dugg ci société bi war cee jeexital moo tax ñu jàngal leen ko yéen yéen su su su ngeen su ngeen jaxasoog nit ñi joñeentoog ñoom da ngeen jeexital ci ñoom lu mu ndaw ndaw mën naa xam ne moom la bokk état bi mënut a mënut a jàngal ñi ñi ñi mën naa am waaye na jëlay ñenn rek du dugal ci société bi waaw fi ñu doon sama ci ci waxtaan yi li tax ñu ñu ñu ñu bëri bëgg ñu mu jàll dañoo xam jeexit yi
am solo nag wax na lu muy jàll baale bi du be- benn xa to toog naa to toog naa ca doominam benn xale ma nga sol caaye ju ci wóom ji laxa saayu ju jóge gerte gerte la jóge de boo gisee dama tiit ma lax day ñëw daal di ñëw nuyoo sukk nuyoo ne ne ma noonu de ci waa gerle wax su su su émission bi tàmbalee dañuy da- da- dajaloon nu ñëpp dongo yi déglu ko xam nga loolu maanaam do- ñoom ñëppay àndandoo dajaloo daal yëppay ñëw dajaloo loolu loolu waaw loolu loolu mën naa bañ a arrangé ñëpp am na am na koo wax ne ma ci ñoom ne ma ren jii def nañ be- be- benn am ndaje ñoom donc ay jërëjëf léegi dafa laaj ne waaw léegi ñoom liñ nekk lu mu doon question boobu la dañu leen wax ci waxtaan.
loolu daal ak yow li li wax
non moo tax moo tax moo tax ci état ak i jàmbaar jàmbaar la de état ja- jàmbaar la de jàmbaar la de subhanallah wa fa tanaka alam tama ka kullu société bépp day mujj maanaam léegi donc ay Sénégal rek ni ñu ko amee incha allah Sénégal ñëpp daal di jaxasoo li li li li tuddee waaja almaa ba li tuddee insihaarul afaq maanaam de de- dem ba dem ba horizon yëpp jaxasoo nit ñi ma ma- ma- diggante insaar bu kii bi in- in- insihaarul afaq bi mooy bi bi bi ñu jëlee séeru bi fi la war a wala.
waa kay kay waaw mu ngoog.
yëpp seey waaw insihaarul afaq jaxasoo rek.
jaxasoo waaw mu ngoog.
waaye nan waaye waaye deltaay do deltaay de ke- ab ab ab philosophe almaani yi moo ko wax waaw waaw waaw loolu loolu waaye nag am na lu lu may tudde man ufuqul intisaar soo dee wax Mhm.
m- maa ngi lay xaar fenn Mhm.
fa fa ma lay xaar léeg-léeg nga juy ma lé- lé- léeg-léeg nga fekk ma fa Mhm.
léegi nag nu ñuy tabaxee nag ardiye mu saraka ba nga xam ne yow nun nun ñëpp danañ bo- danañ bokk fu ñuy xaarante looloo gën fu ñuy xaarante loolu dara moom la. Ardiyetu Mustafa.
waaw fu ñuy xaarante loolu loolu loolu mu ne kon Mhm.
mu ne kon xa- xay su yumkinu al istifada mi mi ne oqoli naadija Mhm.
fii tan ci mi suuni xeer Mhm.
maanaam léegi ñi nga xam ne seen xel seen xel seen xam-xam xóot na ñu ñu ñu mën a jëriñoo seen xalaat yooyee ba dund gi mën a tegu ci ci yoon wo wo mu daa faratul jiwóot jiwóot yi mu daa farat mel ne ab lit toppaloo jàppaloo mm, li tax kii ahdaf yi bi tawa ci tax a dum ngir société bi mën a avancé
Loolu la mënoon a àgg wala.
Hmm?
mu ne ko wax naa da nga gaaw la waaye daal la- waaw waaw waaw gis nga lu- waaw waaw waaw waaw ah des na kay fii rek fii ak foofu ah ah waaw na na mën a bañ kii waaw.
fii fii moom dañ fii dañ koy kii dañ koy dañ koy dem ba ëllëg ndax bii waaw.
baat bi lu lu lu muy firi mën a taxalu i idéologie kon baax na.
lan la
kon yow- waaw man man man sama wax day gudd moo tax day gudd day gudd waaw waaw day gudd man ah, gën a jëf.
kooku sañan kes muskaatil mu tama Mhm.
fii laa wax ne falsafa li- bokk na ci li ma amal njëriñ nit ki mooy mu xamal ko li am Mhm.
ñaan ko daqal ne ko
Mhm.
fi mu toll tey murit gi maanaam léegi am nañ problème lool ci jëfandikoo xel Mhm.
léegi ko naan la si fi waaye man dama wax dama wax di yër damay wax damay damay wax ci yëg waxu dara di yëg mooy lan bu ñu jëmee ci ceeb bi nga ne man neex na ma ne naqari na Mhm.
da da da danañ ci ci xuloo dañ ci xuloo di da da ngay yëg mu yëg rek loolu amuñu leen ci su su ma ne la ana jumaa ja nga ne man de li ma yëg mooy fii la keneen li li li ma yëg mooy mooy fii la loolu waxee dara la ah wa ci waa ji moom bu li xoolee day dem moo xam ne ñii moom ay dof lañ wala wa ah day day day dem xaañoo waaye doo doo taxaw naan luy doon waaw kay kon kon kon ne kon mu ne kon xad xad adrakat xaali biitul falasifa Mhm.
ñëpp ñu fa- falasifa yi nañu fi fi mu muxtar ci ci ci wàllu falsafa jamono yëpp al ahamiya ijtimaaiya li li li dawrihim fi taxadil xayaati ijtimaaiya ñoom daal si seen importance bi ñu am ci critiquer soci maanaam léegi vie sociale Mhm.
nit ñi ni ñuy dundee Mhm.
vie naa nit ñi ni ñuy dundee lu rëy a rëy la Mhm.
te yu bëree bëri la wala yoo xam ne moom yu bëree bëri la yoo xam ne moom teguwul ci yoon waaw wa taxlil mushkilatil mujtama analyser pro- problème yi société bi baxtan an xoroli laxaa ngir ngir wut nag ngir ngir wut ay solution ala sabili misal istran Socrate ar yet fada lil fasadi lati nafarahul sufsayun Socrate fexe woon na ba sufsayun dañuy wax naan ku la dàqa làkk làkk wu jub su leen delloo yow moo gën misal tey tey comme avocat yi aw làkk dong ci ci la ñu naxe nit ñi dégg dégg français étudier baat bi lu muy firi ci linguistique noonu jox ñoom ci ci- ci seen morom ji bu bu dee bu dee kii moo ko gën a capable ci làkk français gañe ko waaw loolu dong la di làkk aw làkk dong la aw aw ka làkk dong la wax waaw làkk dong la wax mu ne mooy kon suuf saa yu ne day wax naan loolu xam ne boo ñoom ñoom boobu balaaxa booba la ñëpp jàng ndax bu- ndax ndax bëgg a mën a yeey suuf saa bi daa wax wax ba noppi bu ne ko man de yooyu nga am mooy mooy la mooy de li ma wax wirut leeral la ko nga xam ne li ma wax wirut waaw waaw loolu kon amul njëriñ loolu loolu kon day day taxaw yar ndax léegi weex ak ñuul daaw ne ci ci ci bitti mu neex ñu mu naqari ñu waaye weex la nga nga may déet nga nga ah kay man man moo ma neex loolu amut di sunu murid gi nag loolu ci lay nekk waaw murid gi waaw ki nga da da da ngaa créé sam sëñ Tuubaa fi rek moom jeex na.
waaw loolu loolu loolu lu xaram la kon kon mu ne ci tataaxal imam Xasaali al imaam jël al inhirafaat adikaat bara tandasuluki fi istanse yi Xasaali mii ku mën a jàng la sëñ bi suñu doom moom moom la jàng def ko idolam def def ko référence am léegi naa ngay wax nag war nañoo indi al munqasimiyaat dara Su- def ko fii def ko si kuut si kuut mos a si fa daaw fi toll yow ci wootekat yi yëpp ci ci woon dara Xasaali dana la su ma gisoon koo xam ne day soppali aw yat jaan soppali xeer wurus ne ma nag deux un un plus plus un égal trois nee na du ko gëm da da dafa xam ne nag lee mu yor xam-xam loo xam ne su ma xamoon man ko ah sëñ bi loolu yomb na loolu na loolu loolu mooy logique ci ci waaye ñi waxkat yi di wax di wax loo xam ne kenn xamu ko nit ñi gëm ko ah sëñ bi sëñ bi ay mu ko ma gis doo doo doo dee tax ba càgg nga ba càgg nga naan yàlla ñu fekk fekk ki déwén kii wax mu di xanaa xanaa xanaa li wax ku ku ma jox loxo doo dee ñu ne waaw parce que nu mu càgg su mujj ga mu ne yàlla ñu fekk déwén da ko jël ko gaa gaa bi ñu amee bu ñu amee dégg ah loolu dañuy loolu loolu loolu amul njëriñ moom.
wax ju tanaaxul dalaal ëpp na ëpp na mu ne kon inxiraafaat yi amoon ci jamonoom booba booba Ismaïl yooyu yi naan ñoo ñoom seenub sëriñ yàlla de day wax ak moom ah am na am nañ ko fi dalu am nañ ko yàlla day wax ak moom am na am nañ ko dégg naa dégg naa la ci njaareem jaag yëpp ok aw ah ngay ngay ngay ngay ah nee nee nee si rajo bi dañuy wax ne ne waaw waaw waaw ñaan seen sëriñ yàlla la yàlla yàlla la yàlla la yàlla la waxtaan boobu yàlla la ba def naa ko ko waxtaan ci ci ci dunia benn gu- ak ak ak ak yanu boolam nga ne Ci gud.
naan naan naan naan du sëriñam yàlla di du du du ab sëriñam la du sàngal yàlla ak waaw du sàngal mu mu mu dara muti buso ñoo ngi daane da dañ sant baa buso waaye waaw da daru mu mutile woon nga weeran benn ndox mu mar ba bëgg a dee ba bëgg a dee dama ko jox wallaahi law daru googu la woon de Loolu fan ñoo ngi de de keroog li bëgg a metti ci ci ca ca image ba xam naa gis xale bi mu sol ca ju rëy ñàng nii takk ay cuur xale bu ndaw la mu ne ay waay yàlla defar ba mu jekk nit yàq rëy ba de yàlla tabax ba mu jekk doomu adama yàq moom man man li ma tiitu dëgg dëgg mooy loolu maanaam nëxal xelum jàmbur ba ba fàtte ne nit la sëñ bi wala xam ne na bu di adama yàlla da ko teral ne nee na ñu ñu fexe ba mu ba mu yaakaar ne maanaa du sero fi ñu toll fi toll sunu sunu sunu sunu tubaab yi ma ma ma wax gone yi keroog ci ci mun a may leen baaxul ci doomi soxna yi makka makka yëpp da- dañuy fexe ba def la ab jaam ba nga nangu ko fi ñu toll ci ci ci misaal seetal su sun sun mag ñi ñu dëkkoon Tuubaa ne fi fi mu toll jaxate ba ba demoon tey Mignane wala beneen dëkk sanci ko kon kon Tuubaa ngi siiw ma ngi yëngu si nga xam ne kenn digg diggatoo di ah li ma ko xañ mooy mooy dëkk Tuubaa sëñ Mbakke Buso su gënoon fii sanci ab dëkk ci àll ba kon tey dana dana gën na- na siiw waaye dafa seey Tuubaa bokkul ci doomu soxna doomu soxna waaw doomu soxna moom sëñ Malamine Ngay Firdawsi dafa waxoon ne doomu soxna su su bañee réer na jàngi su bañee loof na liggéeyi su bëggee siiw na sama dëkk lu am solo ah lu am solo la mu ne kon kon kon kon léegi saa xam ne philosophe ingilis yi John Stuart Mill ku jàmbaar la li ñu tuddee allibéralier mooy mooy lan mooy mooy lan ci wàdd ñoom lu- ay libéral lañ waaw li- libéralisme John Stuart Mill mi moo ko théorisé nga xam ne li- li- libéralisme am na ci économie am na ci xalaat ne maanaam maanaam kenn ku nekk sañ a sañ a xalaata nu la neex waaye nag ay conditions lay am nag du du du ma neex di wéy de dafa am ay conditions nag waaw maanaam bëgguñu daal dañu fi doon suñu watee cinquante maanaam léegi gi cinquante virgule virgule un moo gagné mu ne quarante neuf yi nag na président bi xa- xam ne ñoom ci lañ bokk ñee ñoom dañoo war a seen seen seen xaar te loolu moo mooy tax réew mi avancé kee sañ na man déet ne man damay déet de ba am solo la dépp xalaat war naa am ku lànk
koo pësew daal ko fasiw ndax xam nga xam nga lu muy jëriñ maanaam système be won ko ay ayibam
moom da ko da woon ci lu mel ne iqtisaad yéen waaw waaw déet moom si- kii la eh, politique la siyaasa la politique waaye ci waaye léegi nag moom xaar boobu am na ci économie am na am am na ci lu ne li soxla la- la daal mooy nit ki kenn du ko kenn kenn kenn du ko forcé ne ko nangam ngay doxal nangam
ngay bàyyi daal mu libre li ndax lu tax lépp loo gis rek am na yib ndax ndax nit moom daa matut moo tax xalaatam mun tomat ay yu bëree bëri la mu ne kon waaw waaw mu ne kon ci catégorie individuelle extra de de deenu siyaasan si siyaasa bi la gënul kii waaye nag léegi fëlsa boobu mësu ko jëfandikoo ci istar ak leneen maanaam kañ ka ñuy wax seen philosophie kii waay philosophie iqtisaad ba am na keneen koo xam ne ab ab anglais la xam nga naanti waay keneen la koo xam ne nit ne moom moom moo taxawal iqtisaadu Angleterre waxtaan tudd de ku siiw la iqtisaad yi bu économiste bu siiw la kay li ñu tuddee al iqtisaad siyaasi yi moo moo moo moo moo ko tabax waaw ku jàmbar la xam naa waaye incha allah waaye moom wax Ismaël yooyu moom fu fu ñu dëkkoon ñoom ma ma Ismaël yoon yi xam nga dañu dañu doon xam nga dawlu islam yi noonu mu meloon mu mujj léegi doon ay ay ay fiyaat kenn ku ne ku ne wax ne ne ne maa gëri sama borom nangam